ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp mm, di gërëm waa AFC Diso bu Niacoulrab di gërëm waa AFC bu Niacoulrab tey dañ ma seet si yoon euh, pour seen final bi nga xam ne moom la ñu war a def dimanche prochain pour ma jàppale leen dimbali leen comme man bu dul dara seen frère la ñii seen papa la ñii seen liyaay la ñii seen seen lépp la bon may doomu Niacoulrab aussi war a contribuer si Niacoulrab mm, affaire bi nekk loo xam ne daal vraiment am naa si mbégte lool. motax tax bi ñu ñëwee leen jappalé ah euh mu boole leen ak euh, wa mouvement and defar suñu gox jox naa leen ay moyens sama auto yépp ñu and dem dem ville tan ku nekk peeru mayo bala neex ak lamuy andal yépp bon jënd nañ ko moom lañ doon def nañ remise de remise des dons jox nañ leen ko bon di souhaiter nak vraiment ñu def final bo xamné final bu bu neex lay nekk maa ngi leen def appel aussi ñu bañ fa nekk di xuloo du xeex ndax ñàkk rob moo aye lépp ñàkk rob la la ma waxoon ci sama lancement ci lancement mouvement de suñu ko rek lay waxaat ñoo bokk biir ñoo bokk biti bon te yaakaar naa ne football bi su rassemblé wul waru diviser bu rassemblé wul waru diviser parce que da ngay gis ku mel ni man suma ma doom day bokk ci équipe bi suma ma jarbaat bokk ci équipe bële bon keneen nonu keneen nonu kon yaakaar naa ne vraiment ma ngi oote daal euh, rassemblement dans l'unité bon ñu bokk nday bokk bay def ko final bu neex bu nga xamné ñak rop mo ci gagner

journée bi ñu passé nii nekk na journée boo xam ne c'est une journée inoubliable ndax ku déployé ay otam jox la nga lekk jox la nga naan dem jëndal la jeu de maillot loolu nekkul lu yomb te vraiment c'est bi touché nañu au fond du cœur boo gisee ni may waxee nii. Mm. di amaat contentement si moom di ko wax ne ñun moom ñoo ngi nii ay jeunes lañ ku bëgg jeunes yi ñun ay jeunes lañ te am na lu bëgg te xam ne lu ñu bëgg am na ñoo xam ne mën nañu ko defal te am nañu yaakaar tout le temps ñun ñoo ngi nii ku ñu si oolal lay jàppale ndax développement Niakoul moo ñu ñor. kon bu ñu jógee gis Aziz mu bàyyi ay léppam jël ndax la jug pour la développer Niakoul développer Niaga wala développer commune bi dañuy jug ñun tamit àndandoo moom xam ne lépp intérêt collectif la su mouvement moom ni nekk dañ ko siy jàppale da ko si encouragé te xam ne yoon bi yombul mais yoon bi pour mu yomb.

man lañ yebal fii si journée bi nga xamante ne ni franchement nekk na journée boo xam ne ñun ñëpp kontaan nañ si parce que gis na si suñu boobu jël si nañu depuis si suba def ñu si ay conditions yu baax yóbbu ñu ba fu ñu bëgg nañu loo leen bëgg wax leen wax dëgg fa ne yàlla kontaan nañ ci torop di wax nag ni ñun ay jeunes lañ ñun ñi ñëpp ay jeunes lañ am na ñu bëri ñoo xamante ne ni ñu ngi fii xëy na peut-être yor nañ ko waaye wanuñu kanam bi tax ñu ñëmé leen dem ci ñom wax leen suñuy soxla té Père Aziz wax dëgg fa né yalla mouvement bi mom ubbé ko na ci ñëpp moo tax ñun ñu dem def tek ko suñu soxla té wax dëgg fa né yalla fajal nañ ko ñu ko bëggé ñun jeunesse bi yëpp contane nañ ci mom particulièrement ñun wa diso contane nañ ci mom té ñun ñu ngi ci ginnaw wax dëgg fa né yalla contane nañ torop parce que tay lim ñu defal ni ñun li mënuñ ka faté jël ay autom jël ay nitam jël ay ñëppam def ko suñu disponibilité loolu yombul. waaw di wax ka ni daal ñun kontaan nañ ci moom aussi tamit di ko ñaan mu gën a yokk wax dëgg fa ne yàlla di ko ñaan mu gën a yokk ñun lii départ la rek ñun lu ñu jii dinañ ko fay lu ko ëpp incha allah bu yàlla defee jàmm di ñaan aussi tamit FC Diso yàlla jël may bu coupe bi si jàmm ak salaam ñu jël coupe bi indi ko ba fii xam ne moom moo si jàpp incha allah. incha allah.